mu ne kon ndaw ñi seeni préoccupation la ci jiitu na nekk ak njub ak am xam-xam biy defar àdduna ak bii defar diine waaye mu daal di wax ne nag kon fastaxilu bil xifdi wa tilaawa waaye na ngeen fexe ba li ngeen di jàngit muy bépp xam-xam bu ngeen di sàkku na ngeen fexe ba maîtriser ko buy xam ree xam-xamu théorie na ngeen fexe ba maîtriser ko bu leen yittewoo rek am ay diplôme rek yu ñu bind ci aw këyit waaye na nekk xam-xam boo xam ne dangeen koy maîtriser mu mel ni loola ba mu koy wax tey dafa bàyyi woon xel li nga xam ne tey moo xew tey fii ci États-Unis tey muy Amérique ni ñuy doxale xam ngeen ne Amérique ki yi sukkandikoo tuñ ci ay diplôme parce que diplôme moom nit ki mën na koo amee nu ne waaye diplôme boo mën a amit bala ñu lay jël fenn danañu def entretien ak yow ba xam ndax li nekk ci biir kayit yi nekk na ci sa dënn dëgg-dëgg wala déet buñ defee entretien ak yow it duñ yem ci loolu waaye danañ la testé it ci service bi ñu la bëgg a jël danañ la fa yabal nga liggéey fa ab diir bu loola jàllee nag ca la ñuy xam ba xam ndax yow mii kat li nga wax ne moo nekk ci yow ci xam-xam mi ngi ci yow wala déet loola mel ni ne xaadimu rasul moom daf koo teel na bàyyi xel ba tax mu dénk ndaw ñi ne leen li ngeen di jàng na nekk loo xam ne na mokk rumbux muy na ngeen ko maîtriser bu dee xam-xamu théorie waaye bu dee xam-xam boo xam ne it eh, bu pratique la itam muy lu demee ni kii formation professionnel bu ngeen doon def na ngeen fexe ba am qualification bu wóor ndax loola mooy tax xam-xam bi man leen a jariñ ci seen wàllu diine jariñu leen ci seen wàllu addina mu nekkoon kon fastaxilo wala wastaxilo bil hifzi waaye mu teg ca wa waxtu wu nekkit maanaa curiosité intellectuelle ne ànd ak yéen muy waxtu wu nekk eh, bu yam rekk ci li ngeen xaman waaye bis bu nekk na ngeen di woo xam lu ngeen xamut na ngeen fonk gëstu ak jàng bu leen bàyyi benn yoon jàng waxtu wu nekk rek na ngeen fexe ba xam lu ngeen xamutoon lu dolliku ci li ngeen xaman waaye mu mel ni bi waxee loolu itam nag daf caa dolli nag li nga xam ne moo mën a jaar diggante nit ki ak lii nga xam ne moom la ko dénk te mooy am ak njub ak xam-xam boo xam ne bu wóor a wóor mu moytandiku loo ko loola mu ne wajtaniboo wajtaniboo majaalis shaqaawa mu ne nag loolu nag li leen ciy dimbale na ngeen moytan na ngeen di xool barab yi ngeen di fréquenté ak jëmm yi ngeen di fréquenté ak milieu yi ngeen di fréquenté moytandiku nag fréquentation yoo xam ne du jur lu am njariñ ci àdduna du jur lu am njariñ ci wàllu ci ci ëllëg muy fépp fu ngeen di dem ak képp ku ngeen di toogal na nekk koo xam ne benn mu di leen dolli ci seen wàllu diine wala mu di leen dolli ci seen wàllu àdduna waaye jataay boo xam ne danga fay toog ba jóge fa doo fa jële dara lay jariñ ci sa wàllu diine doo fa jële dara lay jariñ ci sa wàllu àdduna sëriñ tubaa sant na ndaw ñi ñu moytandiku ko mu teg ca nag ne wala zimu man laa yazaalu aabidan li rabbihi ila huda u qaida te ngeen taqalikoo ngeen di taqoo ak a fréquenté jëmm yi nga xam ne dañ leen di wommat di leen orienté jëmm leen ci lu leen di defal ak njub ak mbaax euh, jëmm yi nga xam ne itam boo leen fréquenté da ngay gën a góorgóorlu bu baax ci li la yàlla sant mu nekk sa raison d'être ci kaw suuf te mooy jaamu yàlla mu wax ne wa kullu man baadara waxta jégari ilal udas taraxa waxtal kibari mu ne képp koo xam ne ndaw nga te sa waxtu ndaw lépp nga jëme ko ci lu lay may ak njub ak baax ak xam ak li nga war a xam war koo xàmmee ci sa wàllu diine ak sa wàllu àdduna waxtu woo doonee mag rek danga nga noppaliku kon mu mel kon fii ñu nekk kon képp koo xam ne danga génn tey ndaw boo tënkoo ci dénkaane bii la sëriñ bi dénk te mooy sa yitte jëpp nga jëmee ko ci baax ak amuk mbaax xam-xam bi nga xam ne moo jiitu ca la lay may ak mbaax nga jiital ko ci lépp lu mën a doon di fréquenter milieu yoo xam ne danga fay dolli ko ak xam akum njub dëpp milieu boo xam ne safaan ba nga fay dolli ko nga moytandiku ko lii mooy facteur yi jiitu ci li nga xam ne képp ku nekk ci bitim réew moo xam ndaw nga moo xam mag maanaa bu fekkee ne gànnaayoo nga ko rek danga mucc ci lépp loo xam ne luy lay soppi wala lu lay wëlbati jëme la ci laneen lu bokkut ak li nga fi indaale wala ni nga war a mel eh, ci wàllu njub ak baax mu mel ni kon loolu E mooy la ci jiitu su ko defee nag loolu moo waralan kii du sunu jëwriñ ju mag gi diix cheikh muhammadul morta ibnu xaadimu rasul mu defan yitteem ci digal taalibe yi ñu fexe ba barab benn bu nekk ñu am fa barab barab bu ñu dem bu ne wala dëkk wala réew muñ dem mu ne ñu fexe ba am fa barab boo xam ne kërug yàlla lañu koy tudde ngir war fay mën a daje waxtu wenn wu nekk di jàng ak a nafar li nga xam ne mooy li yàlla bëgg te moo leen di defaral seen àdduna defaral leen seen alaxira bi ñu demee ba am ko it benn barab bu nekk moom mu tànn ay jëwriñ yoo xam ne danañ fa mën a nekk te dara doon seen yitte lu may féete nit ñi ci wàllu googu ci di jàngal ñu toll ci jàng ak yee ñi bëgg a yee yeewu ci seen wàllu diine ak seen wàllu àdduna ba tey fa tabarakallahu tey boo demee ci fépp foo xam ne taalibe sëriñ Serigne yi nekk nañ fa ci Europe wala fii ci États-Unis wala ca Afrique te fa tabarakallahu te topp ndigalul sëriñ bi am nañ fa ay kër yoo xam ne ay centre culturel islamique la yoo xam ne lii rekk mooy seen wàll kon nag mu des nag e, fa tabarakallahu taalibe yi itam nag ñu fexe ba loolooy ñu jariñoo ko xam ne kër yi nga xam ne mooy këri xaadimu rasul yi ñu sàkk nee na won moom sëriñ Mamadul Mortada du kër yu ñuy dajaloo rek di lekk ka naan ka nelaw ka jóg ak wala ñu di fa dajaloo di waxtaane loo xam ne amaloonu njariñ ci suñu wàllu diine amaloonu njariñ ci suñu wàllu àdduna waaye kër la yoo xam ne dañ faa war a daje ngir di ndafar li nga xam ne mooy lii defar suñu àdduna ak suñu wàllu alaxira ci luñ war a xam kon e, loola buñ ko defee rek fa tabarakallahu lu baree bari danañ ca mën a mucc